Oh, comment euh, nous de tout cas avec Feeling Dakar je salue tout le plateau merci. ah Super Thiof xam nga Youssou Ndour daa mel ni woyoon na Super Thiof de. est-ce que waa ji. ah Rocky ah, en tout cas ah, mu ngi noonu. mu ngi waaw ah, waaw mu ngi noonu Super Thiof. xanaa jën boobu du Thiof la tuddee boppam <laughs> nga baal ma ne maa mën toj. Pape am na lu ma envoyé dama bëgg nga ne ko fàng ci écran bi gars yi gis ko ñu commenté ko bari ñu jàll. parce que campagne lu nekk nga gis ci Hmm? Euh, Bamba Samb mon frère maa ngi lay nuyu bu baax jërëjëf merci <laughs> Thioune ça c'est Madiambal Diagne mu ne des jeunes qui investissent les rues de Dakar Plateau pour battre campagne pour envoyer ma Diagne à l'Assemblée nationale y a que deux personnes <laughs> quel commentaire. daa ala dégenda day kii day indéfini affiche kenn ki teena bu mag xam naa peut-être loolu la ci boole à la place de Madiambal Diagne pour que tweet bi gën a correspondre ak lu muy illustré day bind deux du dee deux jeunes investissent les rues de Dakar pour battre campagne pour envoyer Madiambal Diagne à l'Assemblée nationale ah. Madiambal Diagne yow tamit yow kii ko da ngaa dégg tubaab hmm? boo déggee tubaab da ngay éviter di répéter ma defal ko bu baax mu gën bi waaw defal ko bu gën bi mais image bi daal mi ngi rey gars ci internet bi ko euh, kan mooy réaliser tey ci kaw. Pape moo fa nekk. Pape euh, ma dimbale ma jàmbal daal fu texte bi gën a neex. ma jàmbal lay tontu de. attention de. <laughs> indi texte <laughs> ma jàmbal daal ci gàttal nee ay. dégg yu bëri ci Dakar. Ah, ñu ngi ci mbedd yi di ah, waxtaan. am na la mais bu dee rajo la par exemple kuy kuy déglu rajo ay jàpp yu bëri la. waaye ah, léegi du rajo lii dama lay expliquer loolu loolu maanaam du noonu c'est deux jeunes. qui investissent les rues de Dakar pour battre campagne afin d'envoyer Madiambal Diagne à l'Assemblée nationale point du noonu. wala nga ne mais nag ay mbiram. Ah, te ñibbisi na je pense. Ah, deux jeunes moomu campagne na. investissent qui investissent les rues de Dakar pour battre campagne ah afin d'envoyer Madiambal Diagne à l'Assemblée nationale point. assemblée national nag n bi da day n majuscule la ah, bindal nañu kii n ah, ci gàttal laal muy noonu ma jàmmal nee ay jeunes yu bëri ay jeunes yu bëri ñaar ñaar la waroon wax waaw ah, mais pluriel ah déet mais c'est indéfini c'est indéfini ma jàmmal vous deux jeunes et des jeunes maanaam bu doon mbooloo bu bëri la ok mën na wax dee parce que daa bëri lool xam ñaata la mais fii xam nañ ko ñaar la donc le nombre deux donc c'est deux jeunes hmm. donc l'adjectif qualificatif et là non non pas le le indéfini la pluriel <laughs> voilà ça c'est un article kii moom deux jeunes de 60 ans non non la tooñ ñii am na 60 ans. maa ngi zoomé euh, bi maa ngi koy zoom. Ah. Euh, waaw doo ah, ma zoom na ma zoom si lu bëri a am sikkim ak bee parce que dama yeewu tey gis la toile mais en tout cas y a <laughs> beaucoup de commentaires là ah, mu ngi nii voilà Adja Ajal Pape na moon na yéeg. lu artiste lu rapport waajal di wax Ajal temps yii daa xew de ajal yow lii. photo bi ngay indi. bi. Pape kii ndox li nga def ça c'est mon grand <laughs> réalisateur. voilà na yéeg très bien. ñu daa bëgg tooñ ne na 60 ans lay am. voilà très bien merci merci beaucoup. tax tax tax jërëjëf merci. mais ki amul 60 ans de. lu weex de. wala ku njool. Ah. Ah. gisoo lu weex gisoo lu weex li yow. fii daa mel ne est-ce que plateau. Eh, est ce que mbubu Madiambal lañ soxla non. Euh, ah, la ñuy yëg lool ñoom. ñeneen def na ñoom kan la ñuy yëg lool. non ci forom bi suuf. waaw ah, gis naa ko mais kan la ñuy def nii wax Madiambal vraiment dafa waroon bind deux jeunes voilà qui investissent les rues de Dakar et cetera. mais hmm. pas tubaab day naan c'est mais campagne yi campagne yi am na lu neex. mooy par exemple Sonko bi la man nga wax des jeunes d' accord. des milliers de jeunes Sonko. des hmm. jeunes accompagne sàmm sa yow ñoo waroon dem fii ñu nekk dafa wér. waaw ñu dem dem ci. am na ku may benn waay bu taxaw ni chinois yi compté nañu ne moom bëri kooku lay wax kooku lay wax. donc pour man ah. affaire ñu te pour nga am benn député foog nga am 60 ah, 000 voix ah. pour nga am benn député 60 000 voix la je pense. Ah, kooku mu ngi def ne yàq. non non su fekkee mu ne waaye 70 ans la am. na na wàññi ko garaawut. en tout cas ku xam naa xam naa dañoo lekkul rek mais garaawul quoi. dafa waxoon day citoyen rek te xam nga fi nekk nii bëriwul nit quoi fii yaakaar naa kii la Dakar Plateau. boobu ngeen boole da ngay def université xam université boo demee moom mooy bu dee duñ la voté dañ la wër. ah mais après ñu pour nga curiosité boo leen di yóbbu nga leen di wax lool lool nga profité photo waale nga ne léegi waaw waaw si kat. dégg euh, nga euh, <laughs> de diffamation <laughs> non campagne bi booy seetaan RTS da gis lu neex. ñoo xam ne ñaari ni sa topp ñu la ñu jël seen oto di karawaan. ah mais pare naan bëggal leen ñun ndax ñu mën a am majorité. ah mais El Hadj moo ko fi njëkkee nag. ñoom bëgguñ benn député bëgguñ ñaar. mais El Hadj moo ko fi njëkkee. mais mais El Hadj ren nag moom man la woote de waxul ci élection yi de. ah El Hadj am na am na marché kay avocat avocat. waaw comme waaw waaw ah luy doyee député. mu ngi noonu en tout cas merci jërëjëf Pape ah li lañ bëggoon ubbee émission bi tey xam ngeen ne y' a beaucoup d'insolites ci par rapport ak bi la campagne et puis euh, désormais dañ ci ñëw ak yenn saa su ne merci beaucoup vous êtes tellement nombreux à suivre nos euh, leen ci jaajëfal lu baax di leen gërëm di leen sant yaa Mamadou euh, Dani euh, Gani Sakho kii ma di ko Bamba waxal sama tool bi waaw keroog dafa envoyé des images. comme quoi que nos amis de Kédougou seen ay toolu di nga xam ne moo di ceeb ñor na waaye lu ñu ko li nga xam ne moo daggee mooy problème bi keneen nag envoyé na may image et je ñu ngi ñaan ci nguur gi bu fekkee ñu ngi suivre actuellement ñu def seen i kéemtalaay kattan jàppale leen ceeb yooyu ñu mën ko daldi li nga xam ne rek moo di huit bu ko defee aussi ñu mën ko jaarale ci anam yi nu mu gën a yaare je pense c'est important na contacter les services de de l'agriculture voilà incha ma bëgg voilà xam naa bu ñu ci mënee jàpp parce que tool bu yaatu yaatu la et gis naa ne affaire yaa ngi commencé yàqu te ñu ngi wax autosuffisance alimentaire ak yu donc dina am solo merci beaucoup à Mamadou euh, Dani Sakho ñu koy gërëm bu baax a baax ça c'est mon ami ah Mamadou moom son depuis très longtemps mu ne euh, ce nom n'a sa place à nationale non pas bu baax et puis nuyul ma ñaari xam naa dañuy dugg ci waxtaan wi lay waxtaan wi nag certainement dañ daal di rebondir campagne waaye également ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati na ko ginnaaw bu mbayee ko diwaanu Turquie ak Arabie Saoudite ci amaloon na ko ci yooyu lee diwaan moom nag daal dina ñëwaat ci yenn ci li nga xam ne rek moom la fa bokk na ci li nga xam ne rek moo di Aquapo euh, milliards de francs boo xam ne dañu waroon daal di déceler l'eau de la mer moom nag ne mbir moomee daal réussir na ba waxtaan na ak ñi euh, a par rapport ak loolu moom it daal dina condamné bu baax a baax a baax violence bi nga xam ne noté nañ ko mu di l' attaque du convoi de euh, li nga xam ne moo di saccage bu siège bu euh, Khalifa Babacar Sall mais également l' attaque du convoi d' Ousmane Sonko diwaanu fi nga xam ne moo di Koungheul moom nag nee na sàkku na daal ci ministère bi ñu dénk lu jëm ci wàllu yoon ak yoonale mu def liggéeyam te loolee nag na ci daal di tëddee ab njaaxanaay na euh, campagne euh, li nga xam ne rek moo di ab feet la waaye également euh, confrontation d'idées la waaye nekkul li nga xam ne rek moo di ab cow ak yu ni mel certainement on y de plus largement dinañ ñëwaat ci mbirum général Kandé kii di euh, njiitu euh, li nga xam ne rek moo di Pastef euh, di Ousmane Sonko da ci daal di yëkkati ay kaddu mu jàpp nag ñi koy daal di ñu ñee dañoo daal di xamul te daal dina artu ci ginnaaw gi nag Cheikh Yérim Seck moom def na ab vidéo nee na sax bu fekkee ne premier ministre wala sax kii di Ousmane Sonko noppi na nañu ko préparé ab chambre fële ci ndax noppi na delluwaat te li mu waxoon du ci daal di delluwaat ab yoota doon ay kaddu yoo xam ne

nag nee na euh, kii di Ousmane Sonko wax na ne saa ñu amee majorité à l' assemblée nationale dañuy daal di abroger la loi d' amnistie moom nag nee daal loolee doonut li gën li gën mooy nañu taxawal ab comité de réconciliation comme ni ko président xamlee woon nee na nag fu ñu toll nii daal euh, mënuñu euh, resp mënuñu jël responsabilité daal di ko imputer kii nga xam ne rek moo di président Macky Sall ak nga xam moom kese ndaxte kii di Ousmane Sonko également loxoom mu ngi ci mu daal a yaatal ma yéene ci ànd également ak Fatou ci bile waxtaan cun également mooy chroniqueur bi nga xam ne fas yéene daal di faram-fàccee loolee cun fi ñu koy daal di dooree mooy euh, violence bu amoon fële diwaanu Koungheul fan yi nag déggoon nañ sax ay euh, télévision yu mag di annoncé l'arrestation de euh, Fanta yi nga xam ne ñu bëri dañ jàpp ne sanction la ci jiyee ji nga xam ne wala sax ci attaque bi nga xam ne attaqué nañ ko le convoi d'Ousmane Sonko waaw ci histoire dafa am ñaari dëgg dafa am ñaari mbir mais benn moo si dëgg bu si des boobu moom euh, rumeur la boo xamante ni euh, média boobu sax xamul tax ñu def erreur ñoom tamit di yóbbaale ci fake news parce que en réalité Fanta mosuñ ko arrêté mosuñ ko convoqué euh, mosuñ ko arrêté di ko convoqué ba koy def garde à vue donc loolu amul d'ailleurs moom bu coow li bëree moom moo génn sax wax ne Euh, man mii maa ngi nii soog a jógee campagne maa ngi nii ñibbi sama kër kon xam nga ne ku ku ñuy def garda bi du ñibbi campagne bay dem këram wala doo ko jot téléphone sax bi wax ak moom donc mu wax ak euh, ñooñu ba am média yu ko relayer et malheureusement euh, télé bu mu jaar c'est une télévision de boo xamante ne tribune bu mag la bu waxee dañuy jàpp ne dëgg la alors que information boobu moom du dëgg bu nekkul tey lañ ko woo woowuñ ko mosuñ ko woo donc loolu vraiment du dëgg beneen bi léegi beneen beneen bi nag par rapport aux deux commissaires loolu c'est effectivement dëgg la dañ leen affecté. mais on parle de chamboulement au niveau de chambre. Euh, bon je je sais en tout cas moi c'est que l'information que j'ai ils ont été affectés euh, pour faute lourde d'accord et c'est lié aux événements di am zone boobu parce que dañuy faral di wax ne euh, ki nga xamante ni moom mooy préfet. ak sous-préfet du gouverneur ñoom ñoo yore sécurité seen gox fu ñu nekk léegi pour ñu yore ko ñoom dañuy liggéey ak li ñuy tuddee les commissaires de police ou les commandants de brigade. Mhm. pour bu ñu gisee ne euh, événement bi dina déborder ñu jël les mesures sécuritaires pour que loolu ñu mën ko maîtriser wala ñu mën a euh, parer à ce qu'on appelle d'éventuels euh, affrontements. léegi si boobaa ñoom ñooy jël euh, mettre en place dispositif sécuritaire bu doy. bi mhm. nga xamee ne euh, lu bëri lu fa naroon yàqu sax du am xoola nit bu naroon def lu yoon tere sax euh, ñu ñooñu dañ leen di suyaade léegi nag ñu gis ne par rapport à ce qui s'est passé ils n'ont pas été à la hauteur après ils ont été tout simplement. Euh, ñu jëlee leen seen poste yi ñu nekkoon ñu yóbbu leen kenn ki je pense que Thiès lañ ko yóbbu. Mm-hmm. kenn ki xaw ma fan. donc ça oui voilà loolu ça c'est en fait maintenant euh, le commentaire il est libre. Mm-hmm. mais est-ce que c'est niveau de l'ICAD. waaw ah, bon xam nga loolu c'est justement l'application de. nit euh, régime bu ne da am say style de gouvernance de gouvernance cest à que tey si moi ma nekk président de la république man samay ministre man namee leen. d' accord ma nekk seen maam ñi ma yilif man en tant que ministre su ñu defee loo xam ne jàpp naa ne seeni i faute su ma neexee ma ma relever leen fonction c'est droit. Mm-hmm. su dee su dee jàpp naa ne ils ont fauté je peux le relever les autres ici pas fauté aussi ma bàyyi leen fi ñu nekk c'est simple.